politique. Hmm. loo mën a def. Hmm. période bi nga koy defee dafa am solo. absolument Macky Sall defu ko léegi pour rien. absolument affaire bu amuloon enjeu ci local yi. Hmm. du ko def léegi. d'accord parce que amul benn urgence def ko léegi nii. loolu amul. deuxièmement lu grave ngi ñëw. loolu li liy xew la fait que motion de censure bi di ñëwaat lu am solo la. ci kuy jàngat politique. parce que premier bi mu demee motion de censure amul woon. man mooy motion de censure amul woon mooy. assemblée nationale mënuñoo xëy suba. wax dara def dara ci gouvernement def dara ci gouvernement pour mhm. gouvernement bi daanu. Mhm. Mhm. gis nga Pape Macky deful dara pour dara. que ça veut xam nga Sénégal day am ay local dans un an bu amee ay local dans trois mois dans non non des kii des des. des législatives en deux mille vingt deux c'est moins d'un an aussi. majorité majorité parlementaire boobu. Hmm. Hmm. majorité parlementaire boobu dafay romb deux mille vingt quatre. oui majorité parlementaire boobu deux mille vingt sept la mandaam di jeex danga nga baax li ma la wax. Hmm. bu gañee bu gañee élection législative yi ci constitution boo xam dafa am motion de censure mooy deux mille vingt quatre même bu bokkul. képp ku nekk président de la république tu es obligé de composer ak moom wala doo gouverner dégg nga baax li ma la. waaw mais président mën na dissoudre assemblée. attention parce que la motion de censure contre contre pouvoir bi c'est la dissolution de euh, l'assemblée. d'accord mais dissolution dissolution. Mhm. dissolution c'est-à-dire pas am pouvoir. déedéet ah ah déedéet non non dans le temps. oui c'est ça le problème. c'est que président motion de censure aussi. déedéet motion de censure à tout moment gouvernement bi mën na censure. Mhm. sur la base d'un programme. est-ce que est-ce que xam nga baax looloo grave donc ça veut que Macky Sall moom gouverne na sans sans motion de censure en tout cas les deux premières années. mais motion de censure bii di ñëwaat moom bu gañee élection locale yi moom day am impact au la de 2024. loolu am solo bu bokkul. waaw loolu euh, loolu loolu lu ñu war a jàngal. c'est ça c'est donc am moo tax man la Macky Sall amul dara. lu muy def ci politique loo xam ne nii parce que mu euh, je le comprends il est dans son rôle. mais xoolal président lu mu def ci politique rek am na lu tax mu def ko. man wóoroon na ma xoolal dama mos a gëm ni. Macky Sall du mos a jóge ci nguur gi mu sa jóge ci nguur gi sans faire revenir la motion de censure mosuma gëm loolu. <laughs> waaw d'accord alors Mounirou dafa am loo loo wax léegi d'ailleurs te loolu euh, euh, daanaka avancé nga ci sax quand même mooy poste premier ministre. dellusiwaatam ban njëriñ la mën a amal réew mi. Mhm. Eh, am na loo ci abordé tout à l'heure lan nga si bëgg a yokkaat ci loolu. waaw li ma ci bëgg a yokkaat rek mooy surtout par rapport euh, ak euh, la je je ne parle pas de la crise sociale mais de la vie sociale. parce que am na yoo xamante ni euh, bu jotee dem ci président de la république war ko gis mu xat te dañ ko war a régler léegi santé taxaw mbirum école yi université ñi nga waaj a tijji eh, examen yaa ngi yéex. yaa sa si yaa sala war nañu defaraat mbiru par exemple gerte gi bay nañ ba pare prix bi ngi ñëw yooyu yëpp. prix bi kay ñëw na ba pare deux cent cinquante voilà d'accord nañu d'accord ñu euh, yi jóg yooyu yëpp c'est des choses qui vont venir. Mhm. day ñëw léegi nag premier ministre nam ko daan réglé toog ak syndicat yi wax ak ñoom ba juboo tañ bañee sati président loolu dafay rafet. Mhm. te gëm naa ni dana nekk lu am solo. parce que am yaakaar ni su ma waxee ak premier ministre su mënulee am solution dinaa seeti président. loolu déjà ci koo xamante ne da am soxla sa xel mën na cay dal. mën na giif. ok deux deuxième chose. Mhm. le dialogue politique premier ministre mën na ci jouer rôle bu am solo. Mhm. mën nañ nommer koo xamante ni eh, mën na wax ak kujje gi ak ñi nga xamante ni fa la bokk mooy nguur gi yooyu yëpp dafay am solo avant le président de la république. Mhm. sur instruction du président de la république. donc ma gëm ni mën naa am lu mu jouer ci wàllu apaiser. parce que temps yi Sénégal dafa la la situation est ndax au local yi ñu jëm. ci biir mouvement bi sax ci biir majorité bi gis nga ay dissidence mhm. rawatina ak ku jéggi. Mhm. pro procès yi waaj a ñëw parce que démb magistrature certainement y a des procès qu'on va réveiller parce que c'est normal euh, ñu nekk en latence depuis tout tout tout le temps am na ñoo xamante ñi ngi xaar ñu àtte leen te ñu bu ñu leen di àtte mun mën naa amaat leneen lu mu juraat yooyu yëpp c'est des choses yoo xamante ni premier ministre mën na ñëw aplanir waxtaan yaatal. Mhm. gis président daana leen mën a jafe mën na leen a jafe par rapport ak agenda aussi premier ministre mën a xaw a desserrer étau bi wax ak ñoom dalal leen jiifal leen orienté leen aussi pour ñu wax ñi nga xamante ne seen xol dafa fees. ndax état moo tëdd noonu. Cheikh ban njëriñ la mën a am euh, na loo si wax parce que aussi euh, c'est important président am mhm. la amul garde-fou leneen mën na dal ci kawam. ndax au-delà am na leneen. waaw am na leneen aussi. am na problème politique yu grave yoo xam ne APR nomination premier ministre mën na ko régler. mais ça dépend ci kañ koy nommer. voilà ça dépend ci kan la ñuy nommer. pour mu régler problème boobu. moom laa wax. Mhm. ba pare selon ko ñuy nommer. Mhm. selon ko ñuy nommer danañ xam fan la Macky Sall jëm. Mhm. parce que bu nommer ku politique. koo xam ni nii dafa am ay ambition dafa am fu mu jëm dinañ xam fan la Macky Sall jëm. bu demee ku technique koo xam ne day ñëw rek pour def liggéey bi dinañ xam fan la Macky la jëm. donc ki muy nommé dafa am lu lu am solo lu muy lu muy wax. d' accord <laughs> est ce nga wax bi. d' retour pour retour. waaw est ce que yaakaar nga mu nekk ci ñi nga xam mosoon nañu nekk premier ministre. Euh, comme retour la rek retour. Euh, man daal li ma jàpp. par exemple Aminata Touré non li ma jàpp xam nga kenn mënul. Mohamed Boun Abdallah Dionne kenn mënul kenn mënul natt. mais am na profil yoo xam ni tey bu ñuy wax premier ministre di leen xalaat. Mhm. par exemple ku mel ni Amadou Ba nga xam ni il est en réserve de la République ba pare bon gis nga élection locale yi ñu ni ko toogal xel mën naa tey ci ni xëy na mën nañ koo fa teg mën naa ko jàpp mhm. ce serait pas aberrant aussi jonn dellu si mhm. Aminata Touré par contre c'est plus compliqué Idrissa Seck c'est plus non Idrissa Seck non ah bon non je pense même que il est pro plus proche ak Macky Sall que autre chose. déet <laughs> ma xalaat loolu laa gëm man euh, mhm. mais euh, mais loolu bu amee li nga wax nii bu amee euh, Cheikh. parce que dama la laaj Idrissa Seck nga ni ma. Hmm. taqali koog Macky Sall la gën a jege ko ànd ak moom. moom laa xalaat. loolu bu amee kan moo ciy gën a yàqule ci ñoom ñaar. je ne ah, mais ma ni je ne sais pas <laughs> nekkul fi ku ma je ne wax ma ci sa xalaat ci loolu. xam naa ni daal Broxo mi neexatul comme bi mu neexoon xam naa ko moom. d' accord léegi kon léegi nag xam nga xam nga politique moom bis bu ne nit di waxtaan di juboo di retrouver wu. ok mais léegi li ma bëgg a wax mooy. Mhm. profil yi ma gis man. Mhm. dama la am te c' est plus compliqué. quoi non gëw ma ni président dina bu fekkee dafa bëgg liggéey. parce que li taxoon mu mu mu mu taxale ko président ay soupçon la. kan ndaw si voilà dafa ñëw indi ñu jóge États-Unis xaw ma di préparer wu toute son obsession mooy nguur gi et cetera loolu mooy problème loolu moo ko jële woon primature. Mhm. voilà donc loolu nag ci politique soupçon yooyu pour mu daj du yomb. ok Abdoulaye ku mel ni John moom ku ne xam na ni moom vraiment voilà d'ailleurs jonn da ngay wax ak moom mu jël note.